alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. barakatuhu cosaanu feydu TV cosaanu feydu bi bàyyi nasmam boobu mu def ci ñaar fukki atam ak benn te boobu bamba ca mujj ga ba muy wax nga ñàkk mokkal suma way wii bul wax ne itam ñaar fukki at ak la boromam am ne ne maa ngi wax loo xam ne ci médial bi la ko ku tedd waxee woon wala ku gën a tedd muy xadimu taahal maliki wul asaadu mu jublu ci Ahmadu Bamba ba mu demee ba am juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar itam moom Baay ca London imaam Hassan daf ma netti lii mu ne dafa am benn étudiant boo xam ne université ba mu doon jàngee moo fa jiitu tey mag la tey kooku ñu ngi koy wax Faafa Mbay mu ngi may wax barki de mu ci Banjul ne ma fi ne ba bàyyi di wax loolu xalel bu góor laa waaye tey am naa juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar Xasan ne bàyyi kii fi mu doon jàngee moo fa jiitu waaye tubaab yi dañoo bañ dañoo wax ne duñ nangu mukk nit ku ñuul di jiitu ci seen université bi bàyyi na ko loolu yàgg na ci ñoom ne ko su ma woy woo nga gis ma woy ba mu amee ñaar fukki at ak benn di ci tudd Cheikh Ahmadou Bamba la mu wax ne ñuul der taxul sa xel lëndëm loolu laa ci jubloon mu ne ma nga mu ne ma nga gis ne la mu waxoon ba mu amee ñaar fukki at ak benn ba mu demee ba am juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar itam weddiwu ci dara defaru ci dara waxul ne lële waxi xale bu góor la woon ba léegi rek wax jooju moom la confirmé am na feneen foo xam ne tudd na fa Cheikh Ahmadou Bamba ci azakaay gerte wax ne misluhu muhammadul bambiyu way way tax mu ne muhammadu aalimu til bilaadi wal waliyu mu ne mooy borom xam-xami réew mi te mooy waliyu itam ci réew mi yeneen waliyoom fi waaye daf ko màggalee baat boobu kon ñaari jëm lañ yoo xam ne benn lañ ndax ñoom ñépp ci yonent bi lañ jeex Baay sax wax ne ci ajam gu njëkk baat waxee na ko fekk mu ngi ci yonent bi ne ko yow ak Cheikh Bamba fi ngeen egg ci mbëggeeli yonent bi Ben wali yu mas su fa egsi waxi Baay la bu wér ndax rexle boobu li ci aju am ci ne nañ ko waaye amna ci ne kenn moolu ko waaye lam bindoon ak loxoom ci rexla boobu cosaan yi rexle ba carnet bu man maa ngi ko amee ndax ba mu ñëwee daf koo jox Sidi Ali pour mu seet ko seet lu ci jar dindeeg lu ci jar bàyyi pour ñu mool ko nit ñi jëriñoo ko moo tax kon bu ñu neexee ñu ne kër yi benn la